nga ko waxee ngeen gouvernement de combat moo tax am na sujet yoo xam ne moom ngeen bëggoon ñu ñu ñu leeralal ko mais quand même euh, démb yow gisoo euh, am na question yu bëri yoo xam ne Amadou Ba tontu na ci. waaw question yu bëri Amadou Ba tontu ak calme nag ak dal moom ak dal la c'est-à-dire Sénégal yi xam nga cohabitation mën naa ne pratiquement moo am assemblée nationale. parce que tey euh, lu musul am assemblée am na fa moom wax na ko sànq. Mm-hmm. sama collègue nee na pour le moment assemblée bi am mooy assemblée bi gën. Mm-hmm. ñu ngi doog am assemblée. Mm-hmm. li Guy Marius Sagna wax. loolu la Sénégal yi yëpp doon xaar vraiment maa koy rendre hommage parce que lépp lu Sénégal yi di joytu euh, wax na ko ci ah, assemblée mooy moom ñëpp xam nañ ne noonu la soxla à mm. l' nationale dëgg yàlla voilà xeexal au moins euh, li ñuy jooy ci biti c' est à li ñëpp di wax ci suuf moom moo koy wax ci kaw à l' nationale mm-hmm. au moins nag bu fekkoon tey dañ ne mën combat bi au moins nañ gëstu ci li Guy Marius Sagna di wax mm. te loolu yaakaar naa tey fa lañ toll mais nag euh, non c'est-à-dire <laughs> euh, guy ne na ñu ngi am ay ñu ngi jënd ay armes di rey suñuy askan mais loolu fan la ko gouvernement bi teg léegi nga am droit war a manifester génn war a manifester te constitution may nga génn ñu sànni lay lacrymogène ak ñaata lañ lay wax ci milliards plus de quarante et quelques milliards lañ jënd ci ay armes mm-hmm. pour lan pour contrer manifestation manifestations wala pour xeex un adversaire potentiel loolu fan lañ ko teg ci li gën a ci la gën ci la ci la may junj boo leen xoolee yi di ngeen xam carrément lan la guy doon wax à l'Assemblée nationale. Mm-hmm. tey nag te nag muy loo xamante ni ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom. Mm-hmm. mais nag euh, xam naa ne kon huit mois moo des ci ñuy jëm ci élection est-ce que mun nañu fee régler li nga mm-hmm. xamante ni tey moom la Amadou Ba tontu askan bi man gëwuma ko man en personne.